ayca ñu ne di leen bu baax a baax di am mbégte contentement di jënd ak yéen chaque jour indi leen li gën a fës ci xibaaru làmb mooy suñu yitte noonu laay def rek daal di nuyu ñëpp ñu may topp ci Leewtoo TV biir réew ak bitim réew daal di nuyu sama mag ji Mbaye Babacar daal di ñëw jukki leen li gën a fës Mbaye Babacar nuyu. <laughs> jërëjëf Ndeye Mbacke Bamba jukkee koy jukkee koy faj quoi fay naa la nuyu bu baax a baax suñu xarit yëpp yi nga xamante ne bii jamono bii ñu ngi topp Leewtoo TV ngir taataan li nga xamante ne bii ay xabaar la jógee ci ëttu yéenekaay yi bind ci wàllu làmb ñoo la suñu partenaire ah di huile Jador mën nañu gàmb complet boobu vermicelle macaroni spaghetti. Mm. attaaya Jador kenn du Jador di ko béyee bu baax a baax. gannaaw ba Jador participé ki nga xamante ne bii mooy Okoyaar dafa ñëw ne doom doom doomu ko yóbbul Okoyaar nag mooy ndox mi nga xamante ne bii set na sell na neex. oyof ba pare ñu la koy jaay ci ay prix yu abordable macha allah sénégalais yépp ñoo ko mën a jënd ndax prix dafa yomb kon daal au mën nañoo jàpp na mooy. ndox bi ñuy aar. ayca ci noonu laa ne saraax ci journal suñu lamb comme xëy ci xëtam bu njëkk nag dégg nga xam ne mooy Balla Gaye le 31 juillet juillet incha allah les cinq armes de Balla Gaye 2 pour vaincre bokk nga xam ne uh-huh. ne mooy journal les arènes. moom uh-huh. tam moom la xëyee ci xëtam mu njëkk nag suñu papa Moustapha Gueye moo ko xëyee ci àddu. Uh-huh. nee na bu Balla Gaye lañ cee ci kanam Bombardier lan la ci wax. Euh, gannaaw ba nga xamante ne bii ñoom ñaar ñëpp bind nañ ci. les arènes bind nañ ci point boobu ki nga xamante ne bii ñooy waa suñu làmb bind nañ ci boobu la point suñu làmb dañu ne Balla Gaye juróomi arme yi la war a jëfandikoo ngir mën a génn ci combat bi première bi ñun seetlu ne Balla Gaye mbër la ma nga xamante ne bii am na doole am na fit gëm na boppam loolu bu ko jëfandikoo war naa mën a génn ci li nga xamante ne bii moom mooy euh, combat bi beneen bi ñu ja ñu jàpp ne Balla kay du ragal mbër la ma nga xamante ne bii amul mbër mu muy tiit ci arène bi amul menn mbër lay jàkkaar lool di am lu muy tiit ci moom wala di am lu muy yox yoxe ci moom waaye suñu làmb ñoo bind loolu ba léegi ci troisième bi ñu ne face à face yi jot a jàll yépp gis nañ ne ki nga xam ne moom mooy Balla Gaye mooy diriger face à face yi ci wàllu coow bataille psychologique moom mooy gagné ki nga xamante ne bii moom mooy adversaire am waaye suñu làmb ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo ñëw ci loolu ci beneen point bi ñu gis ne Balla Gaye mbër la ma nga xamante ne bii tamit mbër mu fonk mystique la mbër mu am mystique la te li nga xamante ne bii mooy combat bi gis nañ ko gis nañ ko mu defar waat bu baax a baax ci li nga xamante ne bii moom mooy wàllu mystique waa les arènes nag dafa ñëw ci ki nga xamante ne bii moom mooy Balla Gaye ba léegi euh, digganteem ak ñi nga xamante ne bii ñoom la jot a bëreel ci gannaaw dafa ne Bombardier bu xoolee combat bi xool combat yi nga xamante ni bii euh, ancien lutteurs yi bëri nañ ko seen combat yu mujj yëpp dañ koo perte mm. ñu mën cee cité ku mel ni Yékini man cee jàpp Tafa Gueye man cee jàpp Tyson mu ne est-ce que loolu nekkul la nga xamante ne bii mën na dal Bombardier mais nag Bombardier mbër la ma nga xamante ne bii ñin cité yépp Balla Gaye daan na leen daanaka mais daanul Bombardier mii. ci loolu nag adversaire de Siteu le phénomène de Lamsar du 1er août les trois défis qui attend Papa bokk na ci ginnaaw ba mu jógee huit ans ci arène bi. huit ans gën am ndam bokk ci nga xam ne mooy ngénte ga mu war a ngénte jàmbaar Wrestling Academy. waaw juróom-ñetti at daanul kenn bàyyi ma ñoon la mujjee daan dem su ma juumul mu ngi nekkoon naa le premier avril 2013 ñetti défi nag la war a relever première bi mooy euh, commencé ci ci écrit boobu nga xamante ne bii moom la sanc muy écrit jàmbaar première sortie mu am ndam première sortie mu am ndam gannaaw ba ki nga xamante ne bii mooy bébé bis mi ubbee baal bi moom mu war cee topp wane yoon wi moom mi nga xamante ne bii moom mooy tête de file bi beneen bi ñu mën cee jàpp li nga xamante ne bii gannaaw ba mu toogee juróom-ñett juróom-ñetti at amul ndam mu war a du wanewaat boppam nag war a wanewaat ne ci làmb ji la bokk war a wanewaat ne incha allah kenn ëppuma cër ci li nga xamante ne bii mooy làmb ji gannaaw ba mu jógee ci li nga xamante ne bii moom mooy ay dof ay ay ay ay tolof tolof troisième bi nekk nekk troisième point bi nekk la nga xamante ne bii tamit ba léegi mën nañ jàpp ne bu jógee ci combat bi jëlee ci ndam mën na koo ubbil bunt yu baree baree bari suñu làmb bind ne euh, troisième bi moom mooy euh, Papa Sow li koy xaar bokk na ci. E, e, fas yëpp nekk ci gan e, écrit écrit bi yëpp nekk ci gannaawam écrit jàmbaar yëpp nekk ci gannaawam di ko xaar ci victoire di ko xaar ci li nga xamante ne bii moom mooy ndam kon daal mën nañ jàpp ne Papa Sow digganteem ak Siteu li koy xaar du lenn lu dul ndam. te li koy xaar sax yombul 30 marabout assure la victoire à Bombardier journal suñu laam muy xëy di samp laaj ndax Balla Gaye war naa mën a tiit fu ne nii. Balla Gaye war naa mën a tiit mais nag suñu làmb nee na Balla Gaye loolu yëngalu ko. ndax mbër la ma nga xamante ne bii euh, lu ko jaxase yombul lu ko ba yombul lu ko tàggale ak euh, li sagoom yombul mbër la ma nga xamante ne bii buy ñëw li mu am yépp da koy àndaale Bombardier gannaaw ba mu waxee ne am na fanweeri sëriñ ci li nga xamante ne bi mooy combat bi ba léegi bàyyiwul mu ngi wër di recruter li nga xamante ne bii moom mooy ay sëriñ mais suñu laa ma nee na la Gaye tamit mbër la ma nga xamante ne bii côté mystique du bàyyi dara parce que boo xoolee ni mu ñëwee fële ca face a face ba amoon fële ca te ca fële ca 2STV yi équipe bu mystique bi la àndal. ànd ak Thierno nekk ci kanam yor li nga xamante ne bii mooy mooy jàjj ji ki nga xamante ne bii mooy buuju nekk fa Badara nekk fa Sa Thiès nekk seen gannaaw kon daal mën na noo jàpp ne Bombardier am na problème wante Balla Gaye tamit am na problème. ca noonu Balla Gaye B52 de Mbour Papa Sow et pourquoi Modou Lo est cité dans dans les deux combats Modou Lo daal jëmbur la ci ku tudd sa adversaire tudd Modou Lo ku sa adversaire tudd tudd Modou Lo loolu la journal bi laaj lan moo tax. Euh, ñaari combat yooyu yëpp dañ ciy tudd ki nga xamante ne bii moom moo yor roi des arènes muy euh, ba muy Modou Lo nee na diggante euh, diggante ki nga xamante ne bii moom mooy Siteu ak ki nga xamante ne bii moom mooy Papa Sow nee nañ Papa Sow xaritu Modou Lo la moo tax ñu ko ciy tudd ba pare. Siteu tamit mbokk Modou Lo moo tax ñu koy tudd ci boobu le combat moo tax ku wax rek tudd ko ci boobu le combat quant à combat ki bi nga xamante ni mooy Bombardier nag ak Balla Gaye ñoom ñaar la Modou Lo yor ñoom ñaar lool lañ loolu la ñuy yootu looloo tax ñu koy tudd ci ñaari komba bii ko ñaari komba yi waaw mooy farawu jar <laughs> te loolu la Xaddaafi bu Joof yor ak nga xam te ne mooy rhinocéros. Ah. ay rhinocéros fan lañ jëm moom moom nërëti la le 28 juillet lay moo ko may nag ndewenal tabaski boobu Serigne Modou Niang borom mu ñaan production. borom mu ñaan production moo taxawal loolu buñ tabaskee ba pare daf ko spécial ndewenal nag Xaddaafi di mbër mu naqaree wutal combat waaye yàlla def na mu am combat nag ki mu war a dajeel nag nga ne nu mu tudd. rhinocéros turam bi ñàng na bu fekkee ni ñàng ni turam bi ñàngee noonu la ñàngee Doudou Sané mën naa am problème mais Doudou Sané dafa nekk xale ba nga xam ne dafa nekk ci yoon suñu làmb nee na li mu jël ci ay drapeau kenn xamul nu mu toll wane boppam ci lutte simple bi bëri arène bi nag mu def ci benn combat benn victoire la defagum ba paree nekk ci yoon li mu def ci euh, arène euh, lutte simple bi loolu la bëgg a def ci li nga xamante ne bii moom mooy euh, arène bi Serigne Modou Niang moo taxawal loolu le 28 bu ñu tabaskee ba pare muy ndéwénal bu duun mu jox ko amateur yi. te loolu nag combat bi nga xam ne moo dox ci diggante Ndiaga mooy Youssou Ndour. di xale ba nga xamante ni moom tamit dafa nekk ci ci dynamique victoire nekk ci dynamique bu baax macha allah euh, gannaaw ba mu daanee booy melax fi mu toll nii nag moom nee na Jos la bëgg a bëri. sa papa. sa papa nag dafa mel ni fi mu toll nii daa mel ni mooy guy gu daar gi. xale si woon bëgg a <laughs> ku jóg rek na sos waaye sos na ñeexum ñebe de. déedéet ah? ku wedd dina laaj booy ñaa. Mhm. waaw sos moom du ñeexum ñebe. boo fii Iba <laughs> <laughs> mi ngi noonu jaga mii nee sos moo nekk ci xelam gannaaw ba mu defee juróom-ñetti combat def juróom-ñetti victoire nee na daal jot na mu yéeg beneen beneen beneen escalier ñu jox ko sos mu bëre ak moom. ca noonu nag armée bu Ngéwél nga xam ne mooy bébé daaru annulé uh-huh. ne mooy promoteur ba uh-huh. na mooy. Euh, licence am uh-huh. li nga waroon a mbay nag li ko dal dafa metti wax dëgg yàlla suñu xarit la kenn yéenewu ko loolu wante euh, liggéey boo gis day am ay tolof tolof mënul ñàkk démb nag li ko dal metti na trop ndax tëgg ñaari mbër tëgg ay combat ñu ñëw ba ci buntu stade bi. ñu annulé combat bi supporters yi taxaw mbër yi taxaw tëggkat yi taxaw ñëpp taxaw ñu annulé combat bi ci buntu làmb ci buntu stade bi metti na trop loolu moo ko dal démb li ko waral nag mooy reliquat bi nga xamante ne bii waroon na koo jox mbër yi mu toll woon ci 1 million 400 CNG dañ ko ko laaj démb dañ ko ko laajee mu yeex koo joxe ñu may ko battement trent minutes. 30 30 minutes waaw fanweeri simili ne ko moom lan la may boo ko àndewul ñu annulé combat bi ci diggante bi nag. bi muy dem di ko lijjanteeg yooyu 30 euh, minutes yi jàll ci lan ko woo ne ko combat bi annulé nañ ko mais man question bi may posé mooy ñaari mbër yi fan lañ jëm ak Mor Mbaye ñaari mbër yi fan parce que ñaari mbër yi moom liir nañ seen contrat li ñu waroon a def def nañ ko li doxal seen diggante ak moor Mbaye def nañ ko mooy préparer làmb ji ànd ak seen mbokk ñëw ci stade bi bien vrai que bëriwul nag mais li intention bi ñu jëloon mooy ñëw bëri si question bi may posé mooy. nan naka la naka la Mor Mbaye di def ak ñoom. day nuy tëggaan làmb ji wala day tëgg yeneen mbër. lu ma ci mën a am daal xam naa dina métti ci ñaari cas yëpp. Ah. ndax seen yaakaar mbër yi seen yaakaar tas na. te noonu nag caatu yaraax ginnaaw ba mu daanee nga xam mooy Zal Bawa ka muy mhm. hmm. moom tamit nag dafa nekk mbër ma nga xamante ne bii ay kombaam day bar day gaaw parce que bu ñuy xool serpent mi ngi ko daan ci juróomi juróomi seconde Euh, combat bi jàll tamit mu ngi daan Zal Bawol ci ci 3 secondes ñu gis ne caatu yaraax mii mbër la ma nga xamante ni bi daal mbër mu jàkkaar lool bu arbitre bi soufflé rek mi ngi ci sa kaw nekk nekk mbër ma nga xamante ni ma ci victoire yu bëree bëree bëri la toog nekk yaakaaru écrit yaraax loolu la suñu làmb wax nee na yaakaaru écrit yaraax écrit ba nga xamante ne bii Moussa yi mooy tête de file ba caatu yaraax mi yaakaar bu mag la fa. fi mu toll nii nag nee na dafa bëgg ñu jox ko ci ponkal yi mu bëreeg moom te xelam nekkul ci kenn ku dul borom soos soosaat borom cap capaat borom ñam ñamaat. borom du ma naan café tey borom du ma ba léegi les arènes la ñuy yi ki nga xam ne mooy Ibou Ndiaye Ibou Ndiaye ëppale nag jëlal nga xam mooy si mois de sursis di ko waral nag mooy. du ma ne sax doon sànni xeer. waaye daa am lu ko neexul mu fësal ko wala na mu ko fësalee nag moo baax ba tax na CNG daal nag temps yi dafa mel ni seen yaram dafa tàng. waaw ndax euh, gannaaw ba ñu génnee démb démb xam nga ne génne nan ay ay génne nañu yet wi am ñun ko dóor. tey nag yet wi daa mel ni Ibou Ndiaye la dal Ibou Ndiaye obbali nekk mbër ma nga xamante ne bii ci bëre simple bi lañ ko gën a ràññee gannaaw ba mu bëree caaka fay fële ca adresse Senghor benn làmb ñoom ñaar ñu finaalu ko bañ ko finaaloo arbitre bi jox ko ndam li caaka eh, fay dugal recours même pas cinq minutes ñu retire waat ndam li jox ko caaka fay loolu moo ko metti woon mu def benn sortie ba nga xamante ne bi dafa na woon arbitre yi dañuy farfarloo waa CNG dañuy farfarloo loolu nag CNG bi ñu dajee seen biir eh, ba du waxtaan li ñu génnee mooy aj nan ko dina avertise nañ ko six mois ya nga xamante ne bi sursis la lu lu ndaw lu mu ci defaat rek mën nañoo dal ci kawam eh, sanction bi gën a metti que sanction neexul ba nga xam te mu ngay def recours muy écurie bi nga xam ne mooy écurie ñoom yet da leen a dal démb comme ni ma ko waxee ñoom démb dañ leen a dóor yet wi waa écurie Cheikh ndax seen ñaari mbër ñoo doon jot ñoo ñoo doon ñoo ñoo ñoom la ñu jiiñ ne dañu doon andi ay problème foofu lu foofu lay ca arène nationale ki nga xamante ne bii mooy Bada Songaan nag di coach su écurie bi. moom lañ ci jox kàddu mu ne dugal nañu recours wane ne CNG li ñu li ñu génnee ñun ànduñu ci tey ñu ci ëllëg dañuy dugal recours topp ko ba mu sës ndax li nga xamante ne bii noonu lañ àttee neexuñu loolu la ki nga xamante ne bii mooy Bada Songaan coach écrit euh, école de lutte euh, Cheikh ba wax tey ci suñu la ci les arènes bu Abi mu noonu la ma koy jaajëfal bu baax moom Mbaye Babacar loolu moo nekkoon di gën a fës ci xibaaru làmb looy tàggatoo xanaa jaajëfal ñëpp ñaanal ñëpp tabaski jàmm ak salaam yàlla tabaski ji yàlla nañ ci dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci ci alhamdulilahi rabil alamina di gën a soññ sama mbokk boroom kër yi ñi nga xamante ne bii ay boroom kër lañu def loo mën wax loo mën boo tëddee nelaw ndax tabaski benn fan la suba am na gannaaw suba am na xale jigéen ñi sa genre yi tamit bu ci kenn foowee sa bopp ndax cheveux naturel bu ci kenn foowee sa bopp ndax jees Getzner bu ci kenn foowee sa bopp ndax iPhone ndax dara jaru ko ndax jigéen dafa am valeur dafa war a respecter boppam xam moom mooy kan loolu daal mooy conseil bi nga xamante ne bii maa ngi koy jox sama mbokk yi di ñaanal ñëpp tabaski jàmm ak salaam di ñaan tabaski ji ñuy dugg ci ci jàmm génn ci ci jàmm amin amin amin daa defal ko daa defal doon topp ci Leewtoo TV waaye cant ak gërëm ñeel na sama caméra bu man bi ah. Fama Dramé ah Tukulóor dama koy bëggee bu baax a baax Yacine Fall mention spéciale ah mon papa damay jooy de Bamba ay love you dundal dundal dundal ba doyal <laughs> jooy moom bul ko fi def <laughs> sori ko sàkku ci yéen ba ëllëg incha allah